jullit ak jullit gëm malaayika gëm euh, dogal bu neex ak bu naqari moom nga ko soo ko boolee balaa benn pratique yàlla il faut mu gëm am da ngay suivre logique bu l'islam ci loolu la nga mën a jaar ba mën a am la méthode d'éducation du prophète waxtaan bi lii rek moo ci intéressé mooy la méthode d'éducation du prophète yar yomb na. sëriñ bu nekk mën nga tarbiya mën nga defar ko mais li am solo mooy nga tarbiya ci tarbiya yonent bi moo tax ma indi la méthode prophétique d'éducation spirituelle faites que cadre jumaa yooyu ngeen toog rek naan

bi mu ne leen joxe leen azaka kenn deseetul dara bi mu ne leen dem leen màkka kenn taxawul waaye bi mu ne leen woor leen kenn lekkatul parce que boobu xol yi bare nañ ruuy bare nañ yàlla yàlla xay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag toujours damay wax ne ñun différence bi ñu am ak saxaaba yi déglu lu baax la sa bàyyi ak permanentemente nag te boobu xamaguñu la xew xamaguñu la xew léegi nag ki yàlla nar a dimbali moom yàlla subhanahu wa taala ki yàlla nar a dimbali moom yàlla subhanahu wa taala moom jaayante ak moom moom it mu jox la ay médicament nee na lii def suba dee ko def ngoon bàyyil nangam jàppal nangam del def del def lee bu del def del yokk lii del wàññi lii wax li mu bëgg yëpp ba nga xamante ni incha allah boo toppee traitement bi mu la jox da ngay xëy gis sa feebar yëpp daal di l'éducation spirituelle qui est la meilleure des éducations spirituelles, parce que c'est lui l'éducateur spirituel en chef, c'est lui-même la source de l'éducation spirituelle, moi moi moi source bi moi, moi, moi, moi essence de l'éducation spirituelle ndax une éducation spirituelle yëpp ñoo connecté wu ci éducation spirituelle de l'Église moo tax ma ne la différence yi ci biir nit yàlla yi mooy les amna ñoo xamanteni ni am nañ façon yu yére waaye la meilleure des méthodes c'est la méthode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui constitue à purifier le cœur pour mën a song les membres du corps pour que yaram bi yëpp daal di mujj connecté wu ci yàlla connecté wu ci Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connecté wu ci maam seexlu lu bon seexlu lu tilim soxlu seexlu bàkkaar seexlu lépp loo xamante ni yàlla subhanahu wa taala bëgg ma ko